gouvernement de vingt cinq ministres ñëpp mënuñ cee bokk de vingt cinq ministres et de cinq secrétaires d'État ñëpp mënuñ cee bokk ñàkk cee bokk terewut ne amuñ am amoo cër ñun ñëpp am na ñeneen nit ñoo xam ne du ma tudd tur ñëpp xam nañ seen taxawaay ak seen compétence mm-hmm. nekkuñ ci attelage gouvernemental bi parce que Sénégal feneen la leen soxla mm-hmm. xëy na wala jotagul pour ñoom ñu jël ay responsabilité mm-hmm. président Ousmane Sonko wala premier ministre Ousmane Sonko ak président de la République Diomaye Faye buñu togué 5 ans joxat keneen 5 ans ki toogaat 5 ans joxat keneen 5 ans am loolu mëna nek rew <laughs> réew mi bàyyi guñ ko dé hmm. buñ fi défé 20 ans. Hmm. Ya, joxuñ ma benn poste de responsabilité. Hmm. lu mu bëgg am si cër ci rew mi man ci ñaari moy yi la ko bëgg jaaré benn bi moy cëru administratif ci continuer sama liggéey ma wane ci compétence di def ay concours interne ba lu nekk mëna ko doon ci rew mi. fii ba cinquante trois ans hmm. cër bi ma war am sur le plan électif suñ tollee ci laaj ma gis ne mën naa dara mën naa yëkkati sama loxo laaj man ñaari moyens yi ñaari moyens yi mën na nekk hmm. et je suis pour je compte servir commune développement à la base laa gëm donc ñaari moyens yi laa jàpp ne moom laa mën a exiger dara wala ma laaj ko leneen lu dul loolu nit moo lay wóolu tabb la wóoluwu la du la tabb wala boog gisul ne yow la wara tab keneen la wara tab yow du mais pour la <laughs> nga bëgg ci mer mooy kon Sénégal ñorul la donc effectivement je lance un appel à tous les jeunes du parti ñi ma ko mën à tous les responsables du parti. responsable yooyu dara waxal nag. responsable surtout franchement. ànd ak la coalition la mënu ma wax ak parce que bokkuma ak ñoom parti. ku ci nekk am nga sa démarche politique. mais dañoo adhéré ci leen vendre. voilà mën naa leen ñaan mën naa leen ñaan mën naa leen ñaan te gëm naa ne sax ci loolu nañuy taxaw que nañu jiital Sénégal suñu jëmm yi. gis nga dama ko wax 500 sama benn xarit aussi maniko bi moy dernière note projet bi dañ ñoo nattu nattu yu bari ñu ñuy réussir épreuve yooyu di gagné di gagné dernière épreuve mooy lan ngeen ñëw ba yegg si pouvoir diw yorlu poste bi diw yorlu poste bële bis boo réussir épreuve boobu rek c'est fini mat nga le véritable serviteur du peuple sénégalais mooy mën nga fàtte sa bopp pour Sénégal ñu am président de la république boo xam ne li ko def président mooy un premier ministre boo xam ne moo waroon nekk candidat ñu koy xañ mu nekk candidat mu waroon mu waroon def tout bu ne man kese maay candidat président de la ba Bassirou Diomaye Faye ak ñun ñëpp yàgg wax ñun amuñu plan B amuñu plan Z amuñu plan keneen moom mu mën a fàtte boppam jiital projet bi créer ay candidature multiple ba loolu tey sauver Sénégal ba tey alternance am mm-hmm. mais kooku wane na ne jëmmam intéressé wu ko ki nga xam ne moom moo ko jiite ci parti bi moom moo ne nañ jëm retiré fiche de parrainage pour kooku nekk candidat kooku tey nekk président de la République di ko jox ay instruction mu koy doxal wane na ne kon jëmmam ñoru ko réew mi li fi Ousmane Sonko def yëpp légitimité bi mu am tey du président de la République premier ministre la am na chef loolu mooy wane ne kon dama man méngoon naag tel cër yàlla bu nee da war a am tel cër bu ko gën a tuuti utiliser cër boobu pour service réew ce que le président Ousmane Sonko a montré et nous ne devons pas faire moins que lui. Merci beaucoup.